like leen partagé leen gën leen like gën leen partagé lii bu mu leen découragé man Mister Shake je suis là pour vous donner du bon au cœur waaw dama bëgg ngeen na seen xel dal te xam ne lu ci mënta am victoire la ci ñun parce que ñun ñooy diriger gars yi gën leen like yóbbu leen ma mail s'il vous plaît gën leen like gën leen partagé waaw man Mister Shake je suis là pour vous na seen xel dal te xam ne fi mu nekk ñun information bi ñun ñooy diriger waaw Macky Sall suñu agenda la nekk dégg ngi naan il faut alerte la. waaw dégg dégg léegi day jéem a weddi nag léegi déglu leen ko day jéem a weddi gaa yi ko jox information bi ñoo naan ko waaye Matia yaay li nga wax ëpp na. dégg a génn. dégg nga dégg waaw dégg Les gens qui Ousmane vers Dakar contre son gré par les armes de la gendarmerie d'après plusieurs sources concordantes man kay li wax am de peut-être

dem tribunal def cortège am nemmeeku turam ci biir Dakar dañ nako ko fi defé ñu japp ko duggal ko ci blende yóbbu bi tam c'est la même chose bi Dakar la waye bi Tambacounda la tambakunda ñu jël ko buñ ko duggalé sen auto yi nak yalla rek xam lan lañ koy def ci biir auto bi lan la fay noyyi ndax duñ ko pikiir ndax duñ ko ray ñun patriotes ñun ñoo ñàkk fayda même bu dul dara sax humiliation waru ñu nangu Macky Sall japp suñu leader Mati Trois Pommes nekk ci live am di ñu saboter bah lu Macky Sall ba ne du baye Ousmane Sonko ci ak même bu réussi sa mission. Il wax dëgg la né dafa a Sonko yobbu ko Sonko de toute façon il a réussi sa mission xam a lan sa mission Sonko mu réussi Macky Sall mu ne ko sa am jamm dina def sama mission. tour def na sa tour deux jours trois jours ñu Il voiture mu dugg ci clando dem nit ñi top ko kon réussir mais avant tout Sonko jox nañu message bi message bi mooy ne ñëpp ñëw dakaar wax na ko ba pare kon ñoom bu ñu ko yóbboo dakaar wàcc daanu moo ci gën a gaaw daf ñuy arrangé rek léegi nag bu ñu ko jàppee bu dee li ñu wax dëgg la dinañu yeewu léegi léegi léegi léegi ngeen dégg balaa huit heures neuf ngeen dégg ñu ne Ousmane Sonko mi ngi këram léegi ngeen dégg léegi nag bu ñu ko yóbboo këram ah dañuy bàyyi xam naa dañu ndara bàyyi bu guddi gi mais ñi ay doomeram lañu ay dëmm ay tàppet lañ duñ ko yóbbu léegi di ci bëccëg bi de parce que buñ ko yóbboo ci bëccëg bi dañ naan nit ñi dañuy génn dañu dara bàyyi ba ay 9h ba ay 8h ba dëkk bi lëndëm nit ñi tëdd nelaw wala di reer kenn dootul génn ñu doog ko yóbbu këram nag ñu ne yóbbu nañ ko këram Ousmane Sonko dina sonn du mën a génn ci saa si comprendre mais patriote yi vraiment ñàkk ngeen fayda nan ngeen di toogee di gis seen leader xamu leen fan la nekk génnu leen ngeen manifester ngeen xam Macky Sall il capable de tout ma génneel leen Mati trois pommes mu wax leen yéen boo doon ut preuve léegi lan ngeen soxlati Maty Trois Pommes nee na jàpp nañ ko jàpp nañ ko il est acheminé acheminé sur Dakar lan ngeen bëggati on n'est pas organiser nous les patriotes on pas organisé dañu waroon am ay cellules yoo xam ne bu ñu toogee gisuñu Sonko ñu ne dañuy yëngal dañuy def lii dañuy def laa mais nar a toog rek ñu ne ñu Ousmane Sonko mu ngi cité kër góor gi ba pare nag kenn du ko seeti waa yeewu askan bi ay jaam yu bon lañ motax suma su ay gisee bo di yagar yagar naan day dem hmm, nu mu tuddati short euh, euh, euh, Air Sénégal dama né ñi buñu fonto buma bu le docteur Cheikh Tidiane djey naan day jël Air Sénégal naan day dem dama na ñi ay naafeq lañ su ma le faux militaire là comment il s'appelle Déthié Fall avec sa grosse tête au sens propre comme au sens figuré moom tamit mu ne dafay dafay dem daf may jaxal instant bi ñoo ñep amul kenn ku ñu mëna jox ben information ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko Anna Khalifa Sall traître boobu kooku moom bokkatul suñu mënuñu xaar dara ci moom ana Ahmed Aidara, heure bii da ngeen waroon nekk ci convoi bi parce que c'est c'est le convoi de la liberté Guy Marius Sagna waroon na ci nekk euh, euh, euh, Maymouna Bousso ñëpp waroon nañ ci nekk mais ngeen bàyyi président Sonko mom kessé il est seul il est impuissant ah mais Sénégal moo bëri ay Ousmane Sonko mom kessé ak quatre voitures mais qui guerrier la li ma jot def sax nan la ko nit mën a defee Sonko li mu li mu jot a def sax c'est extraordinaire benn nit ak quatre oto rek ay gendarme wër la escadron wër la pendant deux jours nga fexe ba rëcc leen di def li ngay def waaye xamoon ngeen ne tôt ou tard dinañ ko jàpp ñun duñ ko jàppee sax dañu war a sant ndax mënoon nañ ko rey nee naa leen man démb damaa damaa yeewu yaakaar ne camion malien lañ ko ndaroon booleel camion malien lañ ko ndaroon booleel mu ñëw guddi mu mu mu mu buraay leen rey leen ñu ne Ousmane sonkoo nu mu tëddati ah, dafa am accident man sax loolu laa doon ragal kon bu ñu yeewoo tey ñu ne ñu dañ ko jàpp rek rek bu dee jàpp rek nañu sant yàlla te xam ne Macky Sall dëmm la Marème Faye Sall nooxóor la mais ñii <laughs> non mais sa pas possible Birumel mais mais famille bii famille bii dina ñu wàcc barki Rasulaay dinañu wàcc mais ñii ay dëmm lañu mel na ñoom moom Sénégal lu leen neex lañ ci def. waa léegi ñun dañu nar a continuer nii ba ba ba février billahi wallahi taalahi du ñu continuer nii nii ba février nee naa leen wax ju bees ji mooy Mermoz la ñu jëm Ousmane Sonko woote na dakaar yëpp ak Sénégal yëpp booy Casamance yi wàcc leen euh, euh, Dakar Sonko même bu ñu ko jàppee yóbbu ko cité góor gi ci kër góor góor kër góor gi xëy na guddi gi mën na bañ a génn mais na bàyyi ba ci suba si suba huit na Sonko génn bu génnee mu def nemmeeku tuwa Dakar ba xam ndax Macky Sall dina ko tere wala du ko tere waaw dina ko tere wala du ko tere bu ko terewul foofu la ñuy jóge ñu dem Mermoz Macky Sall xawma ma Abuja la dem xawma dafa daw xawma dafa làqatu way kërëm xam nañ fa te il paraît que sax légui ñom sax xam nañ ni domam dafa am kër fofu tamit waaw Amadou Sall moo recevoir Barthélémy Dias Mermoz kon domam tamit mi ngi Mermoz ñun demu ñu pale pale dafa sori. Maxala, Macky Sall nekkatul palais palais de la jëm ñi dañ leen di déloger dañ leen di déloger Ousmane Sonko dem connexion internet yefu tapat taper def il buqat def même le chargé de communication du gouvernement xaw Abdoulaye Fofana la tuddu de Fofana a la genn wax Sonko def dafa bëgg ñu parce que nous bañ ñu japp ko ci affaire Adji ah. moo tax waaye dafa bëgg ñu jàpp ko fii waaye duñ ko jàpp fii xëy na ni mu waxee daal duñ ko jàppee ci ci ci ci nemmeeku tuur bi dañuy bàyyi ba ci aji saar bi ñu jàpp ko ay tàppat lañu ñemewuñ ko jàpp xam nga lu ñuy def mooy jël ko yóbbu ko <laughs> si si kër góor gi parce que bëgguñu gis Ousmane Sonko génn xale yi dar ko Sénégal yëpp dar ko waa gars yi gën leen laaj gën leen partage yéen tamit ah ñun dañ fiy nekk di sacrifier lépp. ah di jël ay risques suñu liggéey amuñu sax droit def def live di sacrifier man vaca samay vacances yàqu na ndax dimanche passé laa waroon ñëw Sénégal mais samay vacances yàqu na parce que Macky Sall mu ngi jàpp nit ñi di tëj ah Cheikh Bara Ndiaye otom ñu taal ko jëppreet di di diital nit di def yëfu dëmm di def yëfu mafia ñun ñu toog rek di dund dundin bu ñaf ndeem gis nga nit dafa am foo xam ne boo fa tolloo ñu rey la sax moo gën loolu El Maktoum moo ko wax Sénégal dundin bu ñef ndéem bi ñuy dund dafa war a jeex gaa yi billahi wallahi taalaahi gis nga indien yi ba fi tubaab yi ñëwee bëgg jël seen suuf dañ leen ne di ngeen jël suñu suuf de waaye di ngeen ñu rey ba ñu jeex dañ leen rey ba ñu ba ñu jeex mais ñun tamit dañoo war a toog ñu jàmbaarloog Macky Sall te Macky Sall ñoo ko mën soo ko wax na la ko ñoo ko mën ñoo ko ëpp doole suñu benn xëy xajul ci moom dañu war a génn ñu tàngal Dakaaru Njaay ba mu tàng jër armée bi jël nguur gi pour une fois, une bonne fois pour toutes, on va se débarrasser de, euh, euh, euh de ce cancer qu'est euh, la paire, de ce euh, euh, cancer qu'est Macky Sall, Marine Faye Sall. sonal nañ pitnal fitnaal nañ ñu yéeg nañu yéeg nañu suñu suñuy bopp di ci dem douche xam nga Kayz a confirmé l'arrestation de de le le cortège de Bougane est attaqué à Kaffrine loolu wa APR euh euh euh Bougane parce que APR amna ben audio bu fuité bu né Sonko bu jaaree Kaffrine parce que Kaffrine Abdoulaye Sow mo fa nekk Abdoulaye Sow mo fa nekk waaw déggal dom xaram bi naan ma yow do ñew yow dom xaram nga mu naan ma do ñew wa APR li ngeen war comprendre moy duñu ñew ñëw suñu bop ñun ñu ngi fi di def suñu live cinq cent cinquante cinq neuf cent personnes du ñu ñuy sonné l'alerte di wax Maty Trois Pommes erreur yu muy def du ñu ñëw di saraxa suñu bopp xam nga ñun sacrifice bi ñuy def suñu famille nga fa xam naa ne yàgg-yàgg suñu famille dinañ leen attaqué parce que yéen ay dëmm ngeen ay nooxar ngeen ay reykatu nit ngeen yéen a ngi rey suñu xale yi ah booy booy booy Ibou Bodian door nañ ko bal ay nervi bu ñu demee ba procureur Tambacounda mu ne effectivement procureur Tambacounda mu ne ay nit ay nervi ay nit yoo xam ne du ñu ay gendarme du ay daal ñoom la ñu gis ñuy nekk ci ay pick-up i pick up euh, euh, euh, ay ay pick up You ay arme dañoo bal bi xalé bi bal lañ ko door bi pa wuñu autopsie bi ne paaka jam dé dañ effectivement xalé bi bal lañ ko door ci biir mu dé wa légui ñun dañuy tok di ray suñuy doom Macky di ray suñuy doom ñu ñu suñu avion nan dañuy dem ay Abuja di ñaawal Trapom nek fi def live di wax bah ah Anita Diop lii di ñu ñaawal te ñoom xam nañ ne billaahi wallaahi taalaahi Sénégal ñun ñooy am ndam ci yéen boo leen nekkee boo bu fekkee ne li ngeen def nii ngeen yaakaar ne victoire la ci yéen yéen a ngi nax seen bopp nemmeeku tuur Ousmane Sonko bi ngeen arrêté même bu fekkee ne da ngeen ko jàpp ñun xamaguñu inform information bi fi mu nekk xamuñu lan moo ci dëgg ak lan moo ci dul dëgg mais man li ma gën a jàpp mooy ne dëgg la ne jàpp nañ Sonko te dañ koy indi Dakar parce que loolu mooy modus operandi Macky Sall Macky Sall noonu lay opéré def naa ko benn yoon neex na duma ko bàyyi jàpp naa Siteu kër góor gi ma tëj ko patron yi nekk ay tapet ah nekk ay tapet mais nag Sonko moo war a dëggal boppam où est Sonko that is the question where is Sonko that is the question mais ñun bu ñu bëggoon Sonko bu ñu bëggoon xam fan lañ nekk bu ñu génnoon yëngal yëngal réew léegi Macky Sall wax ñu fan la Sonko nekk waaye dañuy toog rek ku nekk toog rek. ñun nekkuñu Sénégal ñu ne on est on boo leen bëggoon xam fan la Sonko nekk boo leen génnoon ngeen ngeen fees mbedd yi ngeen exiger de Macky Sall nga ne ko tout ce qui euh, fu Sonko nekk xam nga ko bu boobaa dina la ko wax moo la gën a xam fan la nekk parce que gendarme yi dañ ko topp dañ ko topp xam nga marquage à la lañ ko def ay gendarme yu ñàkk jom ah ay ay militaires yu ñàkk jom nekk ay mel ne ay góor jigéen Top ben gour, Macky Sall nga du du dara ngeen top ko mu leen di jox ay trois ay cinq ngeen askan n'est-ce pas di toroxal di ay ay ay militaires on nous tue on nous tue on ne nous déshonore pas nous mo doon nous mo doon suñu suñu devise suñu devise suñu devise armée mo doon on nous tue on ne nous déshonore pas doole nekk armée ngeen nekk ci réew gis réew boo xam ne nit yi Macky Sall mi ngi mi ngi jalgati ah mi ngi rey suñuy doom di di di di di jël lacrymogène di ko sànni nit ñi waxuma ne sax loolu mais mais euh, euh, nu mu tuddati euh, arrestation tous azimuts ku sëqat ñu jàpp jàpp nit ñi di dugal ci kaso armée bi mel ne armée góor jigéen ملنا أرمي جود جين أي جنرال يو خمن أي جنرال يو خمن ها ده اللي يدم أي بوركينا فاسو أي كابيتان نيجيل بوفوار أي كابيتان مي في جيجس أي جنرال أي شيخ واد ها أي جنرال تين ماك سال دلين إميلي دلين جيلنا دلين ديوب أي أي روسي نيو نانغو أرمي أرمي لابوتو أرمي لابوتو لينو أم مي أرمي بي نيو ورن جوي سون رول نيجيل غورغي باسكو فامي بي فامي دمل لينو داف دافا اوب نيجي ساتش لينو داف ñii man xawma kan moy sen président xeyna na Macky Sall yéen seen président la de xeyna na Macky Sall seen président la waaw eh duul su may wàcc sama sama sama téléphone du yaa ma wax waaw bu may wàcc sama téléphone du yaa maa koy wax gis nga li la wax vous attendez sur des détails ñun ñu ngi fi di def suñu live ah ngeen nek fii di wax ay boo leen wax doo wàcc sa téléphone l'essentiel essentiel ma sama message mo gën nga may wax ndax damay wacc sama téléphone waxtu sama téléphone ma wone sama téléphone wane leen Maty Trois Pommes wane leen ne Maty Trois bii suñu noon la suñu ennemi la te dafa am information Maty Trois Pommes moo ñu wax ne effectivement Ousmane Sonko jàpp nañ ko dugal nañ ko ci gaal dañ koy yóbbu Sénégal dañ koy yóbbu Dakar loolu au lieu ngeen attardé wu ngeen attardé wu sama téléphone déglu sama message waaw ñëw ñëwal wàcc si te <laughs> déggal dof bii moom tamit xaaral waa APR ñoo ma rax fi mu nekk nii waa APR ñoo ma rax nee nañ pour ma ñëw wàcc si terrain bi dégg nee nañ pour ma ñëw wàcc si terrain bi bu ma ñëwee ma sarax sama bopp man du ma Ousmane Sonko buñ ma jàppee kenn du kenn du yëngatu sëgëm sëgëm Jomaay euh, euh, euh, Fay la ñu jàpp kenn yëngatuwul sëgëm journaliste boobu ñoom ñoo ma ëpp fit mais yéen sarax sa bopp la. saraxe sa bopp alors que li may def nii moo leen metti ñoom li may def nii moo leen metti parce que instant yi maa ngi sensibiliser xanaa demu leen TikTok démb TikTok am 75000 vues laa fa am mille vues laa am TikTok waaw sama compte TikTok maa ngi si 60 loolu moo leen metti parce que Macky Sall dafa tëj Walfadjri Macky Sall dafa tëj euh, nu mu tuddati TFM dafa tey TFM Macky sàll dafa récupérer nu mu tuddati euh, euh, Sen TV. waaye ñun ñii nekk fi Macky Sall di ñu wax mafia kàcc-kàcc ñun ñoo ko tere nelaw ngeen bëgg nag ñu bàyyi li ñuy def ah euh, kii lu muy wax ni kii ku muy waxal ni tapet 14 xaw ma sax man man aw ma seen temps mais bu soobee yàlla fii la ñuy toog ñu joxe message bi dina ñu li ngeen bañ a dégg di ngeen ko dégg dem mu xaraam yi suñu réew billaahi wallaahi taalaahi kii nee na suba dinañ la jël si euh, danaa la jël si yow sa waaye yow bu tax ma saaga la bu tax ma saaga la xam nga yéen la mooy seen problème xamu leen ki koy ki ngeen ko seqal ngeen xamul maa leen ëpp baatin du ma seen morom man maay njaago Sonko man sama bakken joxe naa ko tayle naa ko yéen yéenay wër adduna man foofu laa leen rawee man wëruma adduna man nee naa leen bu ma deewoon suba ma jël adduna dara man man man affaire politique yi sax yàlla xam na ne talu ma ku xam Mister Shake xam ne ku xam Mister Shake dégg nga xalpulaar yi ñoo dugg fii di saaga am nga lu leen metti de waaye bu soobee yàlla billahi wallahi taalahi dinañu am dëgg ci yow waaw man li ngeen di def ni ngeen ma gën a encouragé parce que xam naa ne seen xol yaa ngi bon ma TikTok de maa koy taal fi mu nekk nii démb ba soixante quinze mille vues am damaa attaqué Macky Sall ma ne Mermoz la ñu jëm looloo leen tiital man ragaluma sama famille ñu ngi foofu combat boo koy def sacrifice day am man xam naa ne sama jabar mi ngi en danger xam naa ne sama papa léegi ñu taggé mako ñu né déna parce que Mr Cheikh mi ci euh, kii bi mi ngi wax mën ngeen dem ngeen taal suñu kër dem leen barke Rasulaay dem leen dootoo leen ko defati dé billahi barke Rasulaay man dé bu ma duggee ci combat bi suma ma commencé joxe stratégie stratégie suma ko joxé da ngeen di dem sama TikTok da ngay def Mr New York ak Trade Union defe na New York Trade Union sur TikTok ngeen xol 75000 vues la am est-ce yang may deg yo rek lay top dama dama ne yeen xamu leen ku ngeen ko sekkal billahi man duma Cheikh Baara ndjay de man duma duma du morgan de sama jabar ngi foofu dem len ngeen laal ko dem len man barke so lay dootu lan ko def billahi wallahi taala makki Sall dinañ ko fi jele te duñu duñu taal di dinañ fi jëlee Farba Ngom duñu taal këram dinañ fi jele ak a Sall di ragal kii déjà Brimel nee na ma Macky Sall jël na avion dem dem dem dem euh, Ajuba Abuja buy def njaaxu njaaxu du fi toog waa APR man bu ma leen ko waatalee man njaago Sonko su ma leen waatalee ne bu sonkoo dëggalee boppam laa wax de Sonko bu dëggalee boppam laa wax te mi ngi dëggal boppam billaahi man dama leen ko waatal wallaahi wa taalaahi Macky Sall du eggali février du ko fi fekk 2024 man maa leen ko wax oui solo l' information solo Sénégal lan la Sénégal wax. Brimel dafa ne lan la Sonago wax Brimel lan la Sonago wax nga ne selon Sonago quoi dañu confirmer ne que Sonko dañ ko Wow. waaw garaawul même buñ ko jàppee yóbbu ko Dakar loolu du dara loolu du dara billahi parce que xam nga loolu lan lay Brimel bindal bindal bul wax wii bul wax wii bindal Sonko arrêté selon Sénégal bu dee loolu la waaw man mën naa dem Sénégal sax ma xoolal ko sama bopp waaw waxoon naa leen ko tegal naa leen matti trois pom tegal naa leen matti trois mu wax ko ci live am jëfru day bàyyi ba guddi gi mu doog a yóbbu Sonko mais nag guddee guddeegul ah c'est rek a jot.